mbokki xarit yi ñuy seetaan comme ni ñu koy defee chaque jour di leen andil benn euh, recette bu bees tàkk ci suñu cuisine express tey nag ñu ngi leen andil li nga xamante ni mooy euh, beignet carnaval j'espère que dina leen intéressé te dina leen mën a accompagner ci mois de ramadan bi parce que ku ne beignet xam ni dafa nekk benn affaire bu am solo ci weeru koor gi soit mën nga koo doge soit mun nga koo xëddee yaa xool du mu la neexee nga defee ko léegi nag pour tey suñuy beignet carnaval ñu ngi am li nga xam ni mooy euh, farine am nañu coco râpé am nañu beurre nen am les concentrés non sucrés am li nga xam moy levure chimique sucre fleur d'oranger ak essence vanille pour euh, aromatiser li nga xam moy suñu suñuy beñe gën relever goût bi lu def nak lu rek daal di jublu ci togg bi ndax cuisine express la wax. déjà li ñuy def moy dañuy euh, utiliser suñu équivalence 300 grammes wala 500 grammes ça dépend ci quantité bi mais ñun tay mën nañu rek daal di jël équivalence 300 grammes ñu daal di jël li nga xam ne levure bi levure bi nag moom ngay njëkkee soo defee levure bi nag ba pare au milieu da ngay mélanger le tout parce que boo ci defee ingrédients yi ci kaw di nga am euh, benn partie boo xam ne dafay am levure am beneen partie boo xam ne du am levure moo tax moom ngay mélanger ba mu jaxasoo deux sachets de levure chimique la ñu utiliser. ñuy def lu dul jël li nga xam ne euh, suñuy nen. Nous utiliser juste rek ñaar jël suñu sucre Nous utiliser 3 cuillères à soupe de sucre Nous daal di jël suñu essence vanille même bousson bi aussi mom lañuy utiliser pour suñu fleur d'oranger Nous allons commencer à di mélanger délicatement Nous di jël tamit li nga xamni moy suñu beurre équivalent su tamit benn cuillère à soupe jël suñu lait concentré non sucré aussi. def ci digg bi pat bi dafa war a am sel man nag dama def fii tuuti eau tiède ma daal di ciy def benn pincée de sel moom laa jël aussi ma def tuuti dañuy rajouter farine jël farine bi plan de bi tamit dafa war a set rek moy euh, jël suñu huile daal di def ci li nga xamanteni ni moy suñu poêle pour mëna a frire suñuy bañi bi tamit de l'autre côté ma ngi am fi marmite euh duma def loolu rek jël li nga xamni moy euh, sucre bi mëna a defar benn sirop de sucre bo xamni mom lañuy def ci kaw beñe yi pour mën ci saupoudrer suñu coco ñu dajji li nga xamni moy suñu emporte-pièce yi nga xamni mom lañuy utiliser

commencer friture bi ci papier toujours du papier absorbant bi nga xamante ne ni beignet boo koy lekk du am benn huile Euh, comme niñ leen ko waxé won sank ñu ngi doon euh, nettoyer li nga xamni ne suñu plan travail pour yeggali li nga xamni moy suñu suñuy carnaval gis nga ko ni mom rek lañuy jël daal di koy def ci suñu benn bol daal di jël li nga xamni moy suñu sirop de sucre bi ñu doon defar sirop bi nak dañuy ñëw rek automatiquement daal di ko ci sotti li mo taxoon beñe bi def ñu ci sucre bu bari suko defé ñu jël li nga xamni moy suñu coco râpé daal di ko ciy tourner Dans mbokk yi xarit yi ñu comme ni ngeen ko gisee suñuy bañee carnaval pareil, na mu ngi nii ñu dressé suñu assiette soo amee sa feuille quelques feuilles de menthe mën nga ko ci def ci rebord yi wala ci digg bi mu am tuuti verdure bu la neexee tam mën nga ko bàyyi ça dépend ci ñu koy à très bientôt. pour defar suñu beignet carnaval dañu utiliser 300 g de farine 2 œufs 1 ml de lait un peu d'eau tiède 2 sachets de levure chimique pincée de sel ak li nga xamanteni ni moy beurre essence vanille ak li nga xamni moy fleur d'oranger pour parfumer ak aromatiser li nga xam ni mooy suñuy